Euh, transport euh, élèves yi na ni daaw dem naa Canada am partenaire ma seetoon ci wàllu transport scolaire muy société bu ci spécialisé am nañ nag ñoom yéene pour ñu am fukki bus de transport yoo xam dana mën a bu ñu départ ndoor te ñu mën a yóbbu 2000 élèves 10 bus wante loolu dafa laaj tamit alal ji ñu ci war a def donte alal ji ñu cay def it boo ko doon xayma mënut a jënd benn bus bu bees. te bus yooyu bus yu bees la presque waxtu naa ci nag ak meeru Touba daaw mu na mi ngi ciy xalaat dëgg yàlla mairie Mbacké it dina incité waat mairie bi ci projet euh, de vote de budget bi pour que ñu xool nan lañ ko intégrer ci suñu budget donte mënuñu jënd léppit ñu jënd quelque andi ko mettre au service des élèves régie boobu dana permettre ñu sécuriser xale yi ndax conditions yi jàng see day conditions yu défavorable yoo xamante nii danger la ci xale yi kon nag bu demee it ba mairie Mbacke xaw cee lottit ubbeeku nañu pour bépp privé boo xamante ni am nga moyen boo dikkee danañ ci collaborer mooy yóbbu la ci ki nga xamante ni mooy société bi pour ñu mën a jot bus yooyu wante buñ ko jotee lenn rek lay man muy transporter élèves yi Mbàkke Touba wante kenn du ko def ci leneen ndax prix yi ñu ko war a jotee daanaka may